ak ci waxtu wi su rek bi di toi-même nous sommes le vendredi 17 euh, mai 2024 vous êtes bien sur nos antennes sur le canal 12 TNT Bascaf mais également sur nos euh, donc différentes plateformes digitales connectées à notre réseau euh, sur YouTube ak yeneen plateforme yi en tout cas. D'ici de la diaspora, la 15e région, notre seconde famille, a l'habitude de le dire, Mohamedou Mansour Sow, notre euh, douanier et le petit-fils Ardo. Donc nous saluons passage également euh, un grand coucou à nos fidèles téléspectateurs de la diaspora Nous sommes tout le temps devant leur écran ou smartphone Italie France Espagne Belgique en tout cas euh, na ñuy baye xel di euh, nuyu bu baax sunu euh, ay kilifa ku ci melne ñom Diaw Samba mi nga nous à chaque fois daf ñuy ci plateau bi tamit di nuyu bu baax ñi nga ñi ngi nous Belgique Italie ak Espagne ko Babacar Diaw dina leen jox commission bi merci euh, à nos téléspectateurs donc du pays de l'oncle Sam les États-Unis d'Amérique bi euh, dans quelques semaines, semaines. semaine ñu dugg présidentielle de euh, l'Union ci États-Unis donc d'ailleurs un débat public est attendu entre donc qui dit Donald Trump et Joe Biden Nous sommes à Casablanca Maroc bu baax wax ñu nos confrères suñu foofule euh, ca réewum euh, ki nga xam moom moo di kon euh, foofee ca Maroc ah, di roi Mohammed VI en tout am nañu mbégte di nuyu suñu yaay Adja Ndeye Kumba Samb bu baax a baax di ko ñaanal jàmm ak wér fan gudd foofe ci jëppal dërkale nga xamante ni euh, fa lay toog dañu ñaanal euh, yor kurusam waa jàngaan culture yéen ñi bëgg a ñawlu ci julli gi tabaski bi bu ngeen demee jëppal dërkale laaj ci jàngaan culture lépp lu ngeen bëgg ci ñaw yu rafet di ngeen ko am incha allahu rabbi di ko ñaanal jàmm ak wér ak toute sa euh, famille noonu la ñuy ñaanal alaaji Onge Diagne wér ak gon ak fanu gudd di ko tamit ndokkel di ko ziar ci àjjuma ji سيدنا الإمام الله المعدي عليه الصلاة والسلام المنتظر دزار ببا خبا كيف ديني سيرين محمد المنتخب باكي بشير alxalifatul am di taifatul muridiya yal na ko yàlla suñu borom may wér ak kattan ba li mu sumb naal ko ci kër Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Touba Xaadimu Rasul mu defe ko ni koy njottam ndax nag ku nekk xam ne ni Serigne Touba Xaadimu Rasul dafa bay waaram ci yoonu lislaam moom mi nga xamante daanaka amul dara lu mu bàyyi woon ci wird yi ndax wird bu ci nekk jaar na ca ngir boole lépp lu jëm ci diine ji nga xamante ni mooy li may faral di wax waasta simiho bi abdullahi jamiha wala tafarahu mooy ci buumu yàlla gi di mooy di mbokkoo bañ a loolu mooy l'islam bu Sénégal buñ ko nuyoo rek xel day dem ci Serigne Babacar Sy Mansour euh, borom euh, li nga xamante moom moo di kon ëttub Maam Maodo ba foofee toog toogaay kilifa gi nga xamante ni boo tuddee Serigne Mountakha day mel ni ko ndax ñoom ñëpp ñoo bokk diine l'islam ci xolam day sedd ñu koy ziar di ko ñaanal wér yàlla may ko kàttan bu baax a baax ba li mu sumb ci kër maam Cheikh euh, Ahmed ki nga xamante moom moo di maam Cheikh El Hadji si mu def ko ni koy njottam ak mboolem tarixa Cheikh bi en noonu la ñuy ñaanalee Cheikh Mahi Ibrahima Niass moom it ca Medina Baye xolam sedd na guy boo tuddee ñooñu it bu mbég noonu lañ koy ñaanalee jàmm ak wér moom mi nga xam fédérateur la gis nañ ni muy def ci umma islamique bi ni muy def tamit fédération euh, fédérateur bi muy joué ci également en tant que régulateur social ci réunion dendo gis nañ ko yàggul ak Soudan ñu ngi koy ñaanal jàmm ak mboolem njabootug maam Baye Ibrahima Niass foofu ca Medina bàyyi waaye du ñu génn Kaolack te dugguñu lew na kaneen dugg tamit ca euh, njabootug dem dem waaye dem ca euh, foofu foofee ci lew na ñas seen ci Ahmed Tidiane ñas ñu ngi koy ziar ko ñaan la wér mu yàgg fi yàgg toog toogaayu kilifteef googule waaye xel dem ci Ndiassane tey la àjjuma dañuy dugg kër Serigne Amary Ndack Seck ak fële bokk fër Serigne Cheikh bu Mokhtar Kunta foofee muy xalifa ba nga xam ñu ngi ñaanal jàmm ci xalifa maam bu Mouhamed Kunta Ndiassane waaye buñ fa jógee jàll pire ziare yaa njabootu Cissé gi yëpp génn fa caañaañal wuti canaba at maam Amari Ndak Seck sëriñ Assane Seck ñu ngi koy ziar waaye fàttewuñ bu baax sëriñ Ousmane Ngom ëtt maam Rawhan Ngom ca Paal booy dugg Ndar géej fàttewuñ kon mboolem kilifa yooyu lépp moo xam. famille euh, omarienne tamit ziare waa famille Sall ak famille euh, waa Jaamal fàttewuñu kenn njegéen en tout cas ñu ngi ziar tamit waa al yoof laayeen Cheikh Mouhamadou Makhtar Mbañoon Laay xalifatul am euh, taifatul li nga xam di kon lii di toogaayap Seydina Limaamu al Mahdi alayhi salaatu al muntazara walam ajibo dayala ya man salal jiri wa insi ni rasulillah ilaykum ñu ngi koy ziar Cap Vert japp Ngor Wakaam Yoff ba Cambérène eh, di ci ziar ñepp wa jàngu bi mo sañee Benjamin Ndiaye clergé bi yëpp archivé ki ak évêque yi xel dem ci pèlerinage marial bu Popenguine ñu koy waajal bu baax ñu ñaanal mo monseigneur André sar nga xamante ci ca Thiès moo jiite eh, diocèse bu Thiès di archivé di archevêque bi foofule di évêque bi autant pour moi def liggéey bu am solo temps yi ab sorti bu am solo ci woté eh, ak waj tay pour boobu le pèlerinage ak ponk biñ ci waxtané di jàmm jàmm ak yoon sans justice il n'y a pas de paix ñu ci woo ñëpp ñu bokk waajal bés boobule loolu mooy Sénégal euh, nga xamante non lañ ko bokké euh, di euh, sunu réew bi nga xam ne cohésion sociale ak concorde nationale kilifay aada yi ñi ko yore yëpp moo xam ca Cabrousse boo demee foofee ca Casamance dem ca Sine Saalum fo ci dugg rek ba ci feulé ca diwanu Sine ñoom ñëpp ba ci fi ci lebu yi sunu mbokk yi ñoom ñëpp dal nuyu nañ leen Babacar Allo Voyage Mingi ngi c'était le tour la carte postale du Sénégal la donne doon donc euh, c'est important parce que depuis ce matin ak damay jot

Euh, maa ngi lay nuyu Babacar Alla Voyage borom rubrique bu am solo bi moo ñuy tukkil bitim réew ñuy nuyu madame caw bu baax a baax màgget Maguette Diagne borom dus penc ci Ndakar boo tuddee dus penc ci tudd lébu yi xam ne nii macha allah ku ci am paar la na ma jox si paaram nag mooy mooy terrain laa bëgg ah. <laughs> maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Abdou di dellu di amaat mbégteeg cawate teew fii ci plateau toi-même Ticin. Mhm. di TMTC di nuyu sunu mbokk yi nga nuy fii yëpp di xalifa généraux yi nga xam ne ñoo ñuy jiite ci réew mi. Mhm. te ni nga waxee dafa am solo lool mooy Sénégal dañu réalité te ñun ci loolu lañ judd ci loolu la ñu yore donc duñ def lu dul topp loolu di leen ñaanal ñoom ñëpp li nga xam ne moom mooy euh, mission bi nga xam ne moom lañ nekkee yàlla taxaw leen ci taxaw ci taalibe yi ba nga xam ne yoonu siraatal mustaqima bi ñu topp mu yegg jàmm di nuyu église bi comme ko waxoon di nuyuwaat tamit suñu bokk téléspectateurs yi nekk fii ci Sénégal Afrique ak fépp ci àdduna bi du nuyu Mouhamed ah sa doom bi macha allah Mohamed ñu ngi koy ziar waaw ñu koy ziar mm-hmm. euh, di jox gars rendez-vous ci kanam ci rubrique allo voyage mm-hmm. ñu fas na ra a tay encore lu amat solo muy mm-hmm. mbirum migration irrégulière donc euh, amna lo loo xam won nañ ko fi yagul mu am ñeenti capitaine non lañ koy faral di waxee yo xamné dañ doon dawal ay gal yalla def ñu japp leen ba ñu ngi ci prison bi loolu yëpp dinañ ko yaatal lépp mu dem ci mbirum mbëkk mi parce que boobu léegi dañ gis ne mbir mi aussi dafa mel ku jugaat donc ñu ngi jox gars yi daje ci kanam migration irrégulière quatre capitaine de pirogue envoyé en prison daañu ci ñëw ci kanam euh, mi ngi ak ñun Ibrahima Sow di ñëw ci euh, actualité sportive info foot ñu nar a waxtaanee kon lu jëm ci wàllum tàggat yaram euh, ñu nar a waxtaanee ponk yu am solo ci li nga FC Barcelone ak la Liga Premier League Arabie Saoudite ak tamit li nga xam kon la Ligue 1 sénégalaise loolu tamit daan ci ñëw ci tout au long de cette émission Ibrahima ñu ngi lay nuyuwaat bu baax ginnaaw démb ak lundi bi ñu ànd yow ci Abdou maa ngi lay fay ñu ngi la nuyu ñu lay ziare. di la wax sa mbasin bi rafet na. waaw waaw merci macha allah bu paree dama koy. macha allah rafetata rafetatatina. rafetatatina <laughs> moom it rafetal lay sol. rafetatatina rafetatatina xam nga takk weer yi sax mu gën a yaay. non macha allah Abdou moom it da baax nga dem fàttali weer dama fàttoon takk weer. non mais macha allah weer jàpp na la. waaw ah, non il faut mu ñuy wax fu muy solo. man wax naa ko ba sonn. il faut mu ñuy wax damaa bëri ruq nag mais après naa leen booleeg ruq yi damaa bëri ruq nag. <laughs> yóbbu na ma fu muy woto ah. quoi mais yóbbu. ah ah yóbbu na ma fu muy solo. Ah. saa damaa bëgg a topp sa waaye comme fu ma tun a dajeeg moom ma ne ko saa yow benn jour dajale ñaari yoon ci guddi gi mu ne ko sa waay yow. foo waaye foo jëm ku ciy dem <laughs> ak ku ciy yi daal ko am. ah wan ñu ah, de ndax dend ak koo bokkal foo mu wóorul. en tout cas yow yóbbu na ma fu ñuy woto mais ah, yóbbu fu ma yóbbu ñoom ah. euh, ñoom aali. waaye daal bu yàggee dina bëgg ma yóbbu ko feneen. day toppaate de. macha allah di nuyu bi Babacar. très bien waaye bu mel ne topp Sall bi nga jaay sama papa bi nga jaay nee na du ma ne benn gone bu ma ne genn moom benn gone du ma la wax bul ma topp waaye ku ñëw dëpp de. ku ñëw dëpp <laughs> waxi koy ziar. di nuyu Babacar Babacar di lay euh, di nuyu suñu invité bi. Mm-hmm. ñu ngi lay ziare bu baax Modou Modou Diouf. ñu ngi lay ziare bu baax sant xaw a naqari rek. di la wax dalal ak jàmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Dioufène ah waaw vrai que Thiawé ak Dioufène ay kan lañ c' ça le Sénégal la ah, cousinage plaisanterie ah, uh-huh. ak euh, loolu di euh, cousinage yeeg yu ni Amna solo mi ngi fi ak ñun euh, ginnaaw bi nga xamante ni semaine bële lañ ko bëggoon dalal yàlla dogal ñu dog-dog ci signal bi mo am ñu amaan mbégte kon dalal ko tey ci plateau bi Modou Diouf Diouf ñoo ko bàyyi union donc union le président de l'union du monde rural madame kuréel la koo xam ne ñu ci dëkk kaw ki du wax dëkk bi parce que àll dafa Euh, tegg néewul dara mais dëkku kaw gi mooy fi féete kaw na le boo déggee ñu naan kaw mooy lu kawe mais nit ñi dañ ko jël déformé ko naan kaw kaw wala nangam sangam mais mooy fu kawee lool jëm ca kaw mag ñi noonu lañ koy dàkkantale euh, ñu nar a waxtaane kon euh, monde rural bi ak ban politique agricole la ñu war a mën a teg ba gën a mën a gën a ñoŋal wàllum secteur boobu le dégg nañ ci ay information yu bëri yoo xam ne dañ ko partager tout au long de cette émission ñu ngi lay dalal bu baax a baax ci jotaay bi la voilà Abdou euh, di lay jaajëfal mm-hmm. ci vraiment euh, choix bi nga xamanteni def ngeen ko ci suñu jëm mm-hmm. euh ñu leen ci remercier bu baax mm-hmm. baax parce que euh kep ko xamanteni da ngay wax kaw xamne véritablement amna ci lo xamante ci béré béré béré lu ñu wara waxtané effectivement pour euh, nga xamanteni ni ñooñu nguur mon ñu dégg mon ci bayyi xel Mm-hmm. waaye di nuyu bépp kilifa diine ak kilifa aada moo mm-hmm. xamante ni moom mu ngi ci réew mi mm-hmm. di ñaan yàlla yàlla jàppale leen ñu àggali seen mission di nuyu euh, ñi nga xamante ni ñoom la bokkal plateau bi Sow euh, di ñaan yàlla waxtaan wi nga xamante ni moom lañ fiy def waxtaan woo xamante ni wuy jur ngénneel waaye tamit wuy am solo nga xamante ni ñiy seetaan mën ci jëlee euh, ay euh, yokkute. Mm-hmm, am na solo mi ngi noonu donc euh, ñu ngi koy nii moom jàmm laa la woote ndax blanc bu am solo la maye <laughs> euh, ah moom ak Babacar dañuy indi jàmm la paix <laughs> noonu la donc c'est important yaa ngi jóge ban dëkk. Toubatoul. Toubatoul. Mm-hmm. Mm, Toubatoul da jege na sama dëkku maam. Mm-hmm. ndax boo fa jàllee mën ngaa dem ba Bawal. dem ba Kër Samba Kane. Kër mm. Garage. Baba Garage. Ah, dem ba. Ngiraay dem ba. dem ba nu mu tëddi dem ba euh, dëkk gol bi. Mbaye mhm, Ndiaye gol bi Mbaye gol bi. jaar noonu dem Fanaay. Mhm. boo génnee Fanaay sax am na mbedd bu dem ba Baba Garage. nga jóge Baba Garage ñëw Bambey. Mhm. romb nga Pël Ndiaye jaaxal. romb ah? lambaay ma wax lambaay <laughs> ah gaawaan gaawaan waa foofu yëpp zone ak baaba ak Bambey séeréer waaw am na solo bu baax a baax donc altu ndàngal ma waaw am na solo jall ba ñaax laa ñaar dugg noonu romb Ngoy. dugg biir Diourbel nag voilà c'est effectivement. c'est la cartographie de la zone c'est important de connaître les euh, localités de ce pays. tout à fait nga Sénégal du Dakar exemple, Boy booy taw nii <laughs> diggante Liberté Sacré-Cœur yooyu la xam quoi. est-ce que <laughs> booy bi xamul kenn booy bi deux fois liberté si daal miin na ko moom foofu rek laa ko gis muy baagante satol laa jógee borom ceeb bi satol waaw ah. ah, ah, am na solo ñu ngi koy nuyu doyen Ismaïla Aïdara bu la Afrique euh, di ko nuyu bu baax a baax di doom nday euh, euh, Ali Mangasa bi ñu faux de faux bon nga ca journal ba ca ndax booy yu tël la yor ci rédaction bi dañ koy bàyyee liggéey bi yëpp mu yenu ko ma nga ca journal ba waaye bu ñu ne Ismaïla Aïdara xel dem ci maam góor Ngom aussi euh, doyen Ismaël que, que nous réclamons pour un, entretien spécial sur l'actualité africaine parce que magazine confidentiel Afrique bobo limité à l'actualité ci actualité euh, en Afrique euh, am solo lool mm. donc de am solo aussi nous partager son expérience vraiment que sénégalais yi et cee nous euh, ndax li may faral di wax rek mm, wax dafa am ñu ñu voter budget son papa Sall bi Ndiaye di ko wax fay leen ñuy wax am ñu war a fay nous noppi mm-hmm. ndax am na dañuy bëb bi rek waaye dañuy wax du leer ndax boo logee pour nga wax mu yomb du di wax lu mu leer dina jafe euh, te ñenn ñi seen wax day indi mu. taal na réew réew ndax wax yombul. Hmm. moo tax may wax sama Pape Sall bi ñu jaay ne euh, nañuy ñaan yàlla muccal ñu ci accident làmmiñ bi ndax neexut a defal constant hmm, hmm. oto bi mën naa accident da nga def constat waaye. accident làmmiñ beneen affaire la kon yàlla ci yàlla musal. ndax yenn saa ñu toog fi di wax ñi ñuy seetaan ñu ñu gën a xam li ñuy wax. xëy na amuñ accès wax fi moo tax buñ jàpp na ñoo leen gën a xam mhm. moo tax leen di wu ndax amaana ñu dugg seen néeg te tàgg wuñ leen mhm. dugg seen biiri oto seen bërëbu liggéeykaay te wuñ leen kon yenn saa dañuy toog ñuy jéggalu lépp lu juum rek ñu xam ne ñàkk mat la waaye jubluwaay bi mooy gën a defar ndax Sénégal dañoo war a fexe ba defar ko ci ay wax ju am solo mhm. wax bonut mag ñi noonu lañ mooñe woon réew mi société de tradition orale lañ yor ndax damay faral di wax ne jaan dafa jëf waaye lugg moo saafara maanaam nit daa tiim matt mattu jaan bi lugg ko di wax di wax di wax di wax di wax ba dangar ja wàcc kon Sénégal mën nañu wax ba tooke yeeg dangar ji wàcc ndax société d'une parfaite mutation la ñu nekk boo xamante ni euh, société bi ndaw yi dañ ci gën a bari sama classe bi tout à fait te amaana lu bëri dañ ko umpale yi mhm. kon ñu leen di gin ginne dafay am solo nous ñu bëgg di dalal borom xam-xam yu mel de waxtaan nous allah 10 de noonu la ci ñëwee ci kanam 21 ak Samba que ak sa team choc président coach Samba ñu koy après Non, rek la kon euh, dugg ci euh, première partie de cette émission di l'actualité du net

am nañ fi éducation des enfants après un divorce calvaire et misère des mères célibataires bi moom kursu Ndiawar Ndiaye euh, ñu ko nuyu depuis Guédiawaye xam naa dinañ ci indi ay ay ay tegtal yu am solo parce que tamit soxal na euh, lii di réew bu Sénégal euh, bu njëkk bi rek dañuy daal di ñëw kon ci mbirum Lac de guerre de ak li nga xam mom moko moo daal di dal di ab arrestation bu ñu teg woon ko bu ñu teg ci mom ginnaaw bu ñu ko tuumaalee walum escroquerie manam mbir mo xam dafa laal. ak wàllum xëy na jëfi euh, njublang wala yu ni mel en tout cas mu nekk information boo xamante ne ni euh, Sénégal moo ñu ko jéppal donte mbir mi sax mi ngi euh, daanaka ñu jàpp ne am na évolution parce que dafa mel ne mm, ñi nga xamante ni ñoom ñoo di avocat mu ngi noonu ngeen gis ko ci nataal bi dañoo daal di. Euh, donte Sadio Mané dafa génne dix millions daal di koy joxe ndax actualité bi dafa évolué bi ñuy joxe actualité bi mooy mm, dafa génnoon dix millions pour que ñu def li ñuy wax pénalité nga xamante ni dafay daal di rek fay li ñu koy tuumaal mu mën a delluwaat këram euh, ginnaaw bi mu amee woon retour de euh, parquet waaye dafa mel ne daal dañoo mujjee mbir mi def li nga xam ne moom moo di ko ab mandat de dépôt. Euh, ci ginnaaw xibaar yi nga xam ne moom lañu ñu mujj eh, jot mu mel ne kon euh, mbir yi dafa gën di euh, corsé wu bu baax a baax ci moom mii di Lac de Guiers 2 muy mbir moo xamante ni aussi daanaka bëri na lu koy tudd fan yi ci Sénégal ci mbirum escroquerie loolu nag nekk loo xamante ni soxal na Seneweb ba tax ñu bind ci donte Sadio Mané nag en tant que doomu xewu Sénégal dafa daal woon jukki 10 million pour jéem a wane njàpp na la ak contribution par rapport ak li nga xam ne moom lañ koy toppee.

Euh, dafay am loo xamante ne nii je pense que boo demee bay nekk célébrité war nga ci vraiment war nga ci maandu am na ci yoo xamante ci bëree bëree bëri je pense que war nga ko war nga ci war nga ci bàyyi xel euh, de ce euh, yaakaar naa ne jub ak jubal ci lépp loo xamante da nga ci nekk amul prix mm-hmm. lépp lu doomu aadama jub mm-hmm. Euh, je pense que doyul et boo focaliser woo rek ci moom euh, ci yërmande waaye tamit sa xel war na dal war na dem ci ñi nga xamante ni ñoom la ñoom la ñoom la def mbir mi te jamono metti na mettiwaay boo xamante nii yaakaar naa ne ak euh, bépp yéene bu mu mënoon a am wala bëgg-bëgg bu mu mën a am na xam ne tamit wax dëgg yàlla. bu yoon santaanewul mm-hmm. jëfe ko euh, day doy waar ba mm-hmm. tax li nga xamante ni moom moo ko dal euh, war na yee aussi kenn ku ci nekk parce que mbir mën ngay def dara tey muy neex mm-hmm. waaye ëllëg euh, dafay jaar di dafay jaar di sóoraale surtout célébrité yu nga xamante ni ci mel ni Lac de Guiers moi je pense que borom dërëm bi daal toujours nañu koy bàyyi ak dërëmam kenn ku ci nekk ci li nga am nga mën a nga mën a nga mën a doyloo loolu. Mhm. surtout jeunesse bi nga xamante ni wax dëgg yàlla lii. Mhm. war na mën a nekk viatique à l'endroit de tout un chacun. Mhm. et que le geste aussi de Sadio Mané mu nekk geste boo xamante ni vraiment geste bu rafet la. xam naa un peu pour décrisper la la la la situation. Euh, di ko ci di ko ci di ko ciy jaajëfal. waaye tamit euh, y a combien de. l'acte guerre yi nga xamante ni dañu nekk ci situation bi mm-hmm. et gisuñu moom mu def gest bii nii mm-hmm. est-ce que duñu conduire rek ci entre célébrité ñoom ñooy génn lante ci ay ay ay kii ak yooyu mm-hmm. moi je pense que euh, loolu aussi euh, jàngat la boo xamante ni war nañ ci war nañ ci gën a gën a bàyyi xel euh, condamné wuñu geste Sadio Mané waaye tamit euh, ñu ko doon gis ci aussi ci ñi nga xamante nii nat dal na leen ci. Mhm. yu mel ni aussi ñu ko ci ñu ko ci mais bu fekkente dafay. xew rek entre deux célébrités. Mhm. est-ce que rek du dañuy nekk ci. Mhm. xaw a mel muy mel ni dañuy nekk ci réew moo xamante ne nii. donc ñooñu ñooy jàppalante wala ñooñu ñooy dimbalalante ak yooyu. Euh, voilà donc loolu laa amoon ci li nga xamante ni moom laay wax ci. mi noonu di mbirum kon euh, est-ce que kër yi ci wàllum visa kon moom la dégg. Lac de Guiers 2 donc di wala a nar a fanaan guddeem ci eh, prison mi ginaaw biñ ko placer sous mandat de dépôt Babacar. waaw en fait man ñëk wax rek moy toujours domaine mel noonu soo koy dëggee dafa nekk ay affaires sensibles hmm. parce que d'ailleurs bon ben man ci loolu yëngutu hmm. motax lu ci métti lu ci lu ci bëri dañ ci maytu. parce que hmm. lu tax mooy. Sénégal so waxee affaire visa rek xaalis dugg wala dara dugg rek. pour ñu charger la day yomb. nag dafay dafay trafic visa dafay def nangam nangam. mais li ci gën a am solo aussi tamit mooy euh, dégg nañ ou bien man gis naa ko ci presse bi wala presse en ligne bi ñu ciy wax ak boobu ba léegi waaye am na ci yoo xam ne xëy na enquête mooy gën a mën a fasal lu xew parce que tamit léeg tamit da ngay dégg diw ñu sas ko dara wala ñu tuumal ko dara mais peut-être bu ñu demee ci enquête yi dina tax ñu gën a xam mu am lu leer. Mm-hmm. mais li ma ci wax daal mooy mbirum visa dafa doon mbir mu doy waar ci réew mi euh, leneen lu ma ciy teg mooy aussi am na loo xam ne tamit bien vrai que xëy na bu dee am la parce que man ci presse bi bu dee lu bu ñu téye ko nii di ko tuuma loolu te enquête waxagul effectivement nan la demee ba mu ba mu leer mais ñii ñëw aussi tamit man damay jëlale kaaw ki nga xam ne mooy Lac de Guiers mais ñi nga xam ne aussi tamit dañuy ñëw ci nit ki moo xam c'est un artiste nga jàpp ne kii woykat la wala am na tur wala kii day dem ci benn foire wala kii comme ni ñu ko waxee léegi day bëree wala comme ni mu ko waxee ñu ay nit yu siiw lañu nga romb ambassade romb la nga waroon def yëpp di dem ci nit ñooñu est-ce que tamit ñoom waruñu leen impliqué bu dee loolu dafa am ci mbir mi parce que tamit man mënuma d'accord que nit ki ñëw na jox nit mais moom mi dem ci nit ki ne te kooku du ambassadeur en fait du consul je veux dire du joxe visa après kooku topp kooku bien vrai bu bu amee affaire xaalis am ay décharge yëpp amul problème mais aussi tamit kiy jug dafa mel ne par exemple tey kuy jaay drogue ak kuy jënd drogue man noonu laa koy jàppee pourquoi par exemple ki demoon di jënd drogue joxuñu ko drogue bi rek ñu jàpp ki doon jaay drogue noonu laa ko mën a misaale quoi mooy c'est-à-dire affaire visa la bu fekkee tamit dem nga ci nit di solliciter moom visa moom du consul du ambassade du kenn donc yow da nga waroon dem fa nga xam ne foofu la ñuy mayee bu loolu amee dafa waroon nañu war a sanctionner ñaari côté yëpp mooy c'est-à-dire kii dem ak ki def hmm. affaire Lac de guerre nag bon da koy dégg nii rek parce que yu ci bëri tamit surtout ñun dañ nekk ci ay télé ki rajo di wax luñ ci wax rek dañ nekk loo xam ne tamit euh, lu fi ndew la mais daal mbir la bu sensible man mi ci liggéey xam naa dara damay daw a daw ba lu ma ci mën a moytu moytu parce que erreur bu ndaw ñu yàq sa der erreur bu ndaw ñu na voilà lii la doon def lu baax li nga doon yëpp jëf yëpp mu effacé ko bu ñu ko xamee xasee ba génne ci presse bi ñu naan voilà da doon trafic visa ñu chargé la wax ci yow loo xam ne defoo laaloo taqewoo loolu daal laa amoon lu ma ci wax. Euh, Abdou comme ñu ko ñaari grand yi waxee yëpp résumé nañ ko man je pense que bu ñu waxee affaire escroquerie comme ni ko mm-hmm. grand bi waxee léegi. Mm-hmm. day xaw a laal foo usage de faux donc yooyu noonu affaire yi nga xam te ne dañ dafa dangereux. Mm-hmm. Euh, comme ni ko grand bi waxee léegi léegi ça veut dire bu ñuy sanctionné mën nañu sanctionné des deux des deux mm-hmm. parts mm-hmm. parce que des fois yow mii xam te ne yow mii xam te yow yaay ñëw tamit di wut ci visa bi yow xam nga ne tamit am nga yoon boo war a jaar kiy joxe visa bi aussi moom tamit xam na ne waru ko joxe mais comme ni ñu ko waxee rek euh, je pense que wàllum yoon la donc ñun duñ ci xuus mm-hmm. duñ ci wax li nga xam ne xamuñu ko si net bi lañ ko gisee comme ñëpp man nag vraiment euh, estimé woon estimé naa parmi ñi gën a estimé si mbër yi man man dam si bokk parce que man la de Guiers ni mu ko gisee si euh, image nit ku dal la nit la bi nga xam ne yaru na nit la bi nga xam ne bëriwul problème doo ko dégg si ay problème yu bëri bëri donc man lii bu mu amee nii nii xaw na ma bett tuuti tuuti mm-hmm. et bon bu fekkente ni moo ko def moom di ma bett trop trop trop ñu ngi bàyyi tamit yoon yoon def liggéeyam. Mhm. parce que yoon moo ñu gën a xam liggéeyam. Mhm. je pense. waaw et puis ni ko Diouf waxee léegi tamit dafa am solo mooy par exemple boo demee ba siw da nga war a maytu parce que benn Diouf bi ah, à part ñi ko xam ak yooyu bu defee yenn affaire peut-être di ko war mais bo demé ba siw ben benn woykat bu siw benn mbër bu siw benn koo dañ la xam ci dëkk bi mm. yoy tamit fay bax nit ki man comme ni waxe tamit da fam solo moy ñuy maytu affaire visa mm. nit bu ñëwee na la par exemple gis na da nga bëgg dem mm. peut-être dañuy japp ni ki mbeur la fay dem peut-être pour def ay euh, entraînement fofu mu groupe ben groupe la bo xamné dem dem fofu ben affaire ñu ah, na attention mu leen ci biir kuy dem ben nangam dañuy ne ci lolu pour mëna dem tukki donc li am solo ci affaire visa yi mhm. sénégalais li mu leen ciy mhm. visa du nit a koy joxe même kii ligue ci biir ambassade bi sax mënu la jox visa donc da fay am solo ñu baye business bobu ñu def ci visa yi mais leneen tamit mi ngi ci tamit ma delluwaat insisté waat yi mooy léeg-léeg tamit ñu takal nit ci affaire visa lo xamne deful waxul parce que ju ci bëri peut-être dañuy def sen bop ne ku melni ni ñun ci yëngutu une deux mën nga takal nit ki ñu ne voilà affaire visa la rek ko nangam la automatiquement dañuy japp ne jubulo da nga jël xaalis jambour da nga def naka sa dund noonu loolu tamit dafa am solo parce que des fois dañ nek ci milieu bo xam parce que man dama ci dugalaale sama bop parce que dama ci yëngutu dañ nek ci milieu bo xamne ne bu ñu waxee visa rek wala ñu tudd diw dafa nit ci nangam rem taxal la day yomb mm. donc taxal boobu day yomb nag dañuy war a di moytu rawatina tamit aussi tamit suñu presse bi nga xam ne tamit ñoom dañuy bind wala dañuy wax ñoom it léeg-léeg day baax balaa nga ciy bind loo xam ne mm. jot na génn ba pare ba dara nit ki yàqu fekk demewul noonu dañuy gëstu ba xam lépp moo tax sànq boo xoolee sama tàmbali wax ma ne peut-être enquête bi xëj na moom dina gën a leeral teg si moom tamit li ñu koy tuumal su demee bu fekkee ne peut-être demeewul noonu bu génnee war na mën a def benn point de presse boo xam ne dana leeral. mais sànq kii euh, monsieur na ci lu am solo mooy. si boo euh, maanaam baaw.

ay punkal lañ daal Seck ñu koy euh, euh, suspecté supposé que ne bokk na ci parce que dañuy respecter sa présomption d'innocence mhm. njott nañ né japp nañ ko ci lu mel mais da ngay xol Sénégal ñi japp sacc ginaar rek ak i nen ak yooyu yu ndaw ndawani ñoy ñoy gën dé ci kasso bi mais boy xol ñi nga xamante ni ñuy faral di def yenn njombe yi boo leen di xool ay borom yu barke lay doon. wala ñu am ay loxo yu am doole. tout à man ma jàpp nag loolu aussi vraiment war nañ ko xoolaat bu baax a baax euh, parce que lii tamit honoré wul sa personnalité. Euh, donte aussi ñu ngi koy ñaanal mu génn ci ak jàmm. amiin amiin nag l'enquête parce que dañoo téye def sous mandat de dépôt. dañu àtteeg mhm. nangam sangam mhm. parce que tant que procureur demul ba nga xam ne yëf leer l'enquête n'est pas. Mhm. bañ na leen def arrivé à son terme. voilà mënu am certitude. waaw waaw loolu la quoi parce que on respecte la présomption d'innocence. tout à fait mais dal prétexte bi la wax rek. voilà c'est que lu ñuy la rek prétexte la rek. bo nek ci yenn yi. soura sóoraale yenn yi. très bien ngir baña dugg ci yenn yi. yenn yi macha allah am solo. <laughs> ngir ñenn ñi bañ la gisee leneen. yeneen yi <laughs> mom moom moom maanaam ça nous est arrivé. Mm-hmm. un peu l'histoire d'un parlementaire. Mm-hmm. comment est-ce que y a avec euh, le truc des passeports effectivement voilà c'est Yagoul dara. Mm-hmm. aussi lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, continuer avec actualité qui euh, lui, euh, bi Sénégal parce que wax dëgg yàlla su ko neexoon mu jël alalam. Mm-hmm. moo xam moom boppam ah mm-hmm. kenn du ko ci toppee dara. Mm-hmm. tëdd ca France tëdd ca bitim réew. Euh, tëdd ca bitim réew. def lu ko neex. waaye lu jëm ci li nga xam te moom moo soxal mm, wàllum euh, euh, ndimbalante gis nañ bu baax a baax. taxawaay bi ñu am ci Sénégal. ci ñi nga xamante ni yelloo nañ ko loolu moom. du guleet waaye bu ñëpp meloon ni moom. Sénégal yaakaar na dina dina développé. bu ñu amoon quatorze quatorze Sadio Mané dina baax ci quatorze régions yi. quatorze régions nga am fukki kër li may faral di wax benn kër rek ci nga mën a fanaan mhm. lii kër gi rëy rëy rafet rafet karale ko kaw ba ca suuf dëgg la moom xajoo benn néeg bi ngay fanaan mhm. néeg bi li muy rëy rëy rëy ah soit nga tëdd ci suuf ci canapé wala ci euh, moquette wala nga tëdd ci kii waaye ci benn tëdd ngay tëdd lal bi li muy yaatu yaatu soit ngay déplacé wu rek waaye benn côté rek nga mën a tëdd mënoo tëdd lépp lal mënta ne lépp amul njëriñ da ngay ci da nga ci jaamu yàlla. doylu rek moom ci yàlla loolu dong moo am